jaadu na ma laaj ko bu ma ko laajee ndax ki ma koy laajit jàpp naa ni bu ma ko joxee amul benn sénégalais bu war a taxaw di diingat ne président may na Modou Fall 30 millions 30 millions yi nag demandé wuñ ko pour dañu xiif wala dañu feebar wala dañu bëgg a faju mais dafa fekk ne nag lu la bett da lay mën dëkk naa ci kër pendant des années samay doom yëpp fa ñu juddoo lépp lu ma am ci environnement foofu laa ko amee kër googu tey jii seeni borom dañ ko war a jaay te ni ma fa nekkee di fa suturloo bu ma génnee kër googu tey mën naa am beneen jafejafe mu mën maa gàllankoor ci sama liggéey bi ma war a def moo waral tey comme jour la boo xamante ni ñëpp dañuy wax seen i doléance ma ñëw tàllal njiitu réew mi ne ko kat man lii mooy sama doléance te bëgg naa nga jàpp ci waaw moo waral ma ni euh, j'ai besoin de 30 millions donc di ko laaj ki nga xamante ni moom mooy le chef de l'État parce que gàll bi ñu ngi koy jaayee 40 millions ñoom ñi ko moom nee nañ ma bu dee yow mën nañ la ko jaay à 30 millions 30 million nag aw ma ko xobet xobet moo tax tey ci bés bi nga xamante nii bésub doléance la bésu bu wax soxla la bésub euh, maanaam euh, saafara jàngoro moo tax ma ñëw fii vraiment ngir sama jàngoro mën a fee jaaree saafara wu. Euh, wàllu environnement bi yow yow kase yaa si yëngu wala am ñoo ko ñoo ko sékkal. waaw parce que organisation bi organisation bi Sénégal propre la tudd. donc du man rek man maa ci nekk am na ñu bëri ñu nekk ci biir organisation bi di ci yëngu am na ñu nekk ci aussi ci régions yi di ci yëngu mais bés bi tey dafa fekk mu nekk bés boo xamante ni maa ñàkk bañ a ñëw parce que waxtu bu romb rek day compter ci li temps biñ ma may moo waral vraiment yëgalu ko sax organisation bi sama jëmmi bopp maa ñëwal sama bopp présenté wu li nga xamante ni moom mooy samay doléance vraiment pour bëgg ñëpp partagé ko mu egg ci ki nga xamante ni moom mooy chef de l'État ngir mu mën maa saafaraal sama jàngoro. merci monsieur